Euh, di leen jox ñuy xéewlu ñoom ñang ñi xam nga am ña ngeen mënta nekk fenn tudd xéewlu bu ko defee ñu nekk fii ba suba ci ngoon <coughs> suba dinañ fi def fukki conférence yoo xam ne 9 heures suba dañuy commencé ba 19 heures ci ngoon conférence yooyu aussi ñu koy def mooy ay dimina euh, professeur la ñu ñu xam ci réew mi xam seen xam-xam ràññee seen xam-xam waaye xam seen nekk ci wasate wasate mooy juste milieu nga xam ni ñu xam ñu jeng jëm fi wala jeng jëm fële wala ñuy wax ci parparloo Euh, donc loolu suba lay am fii incha allahu taala euh, professeur yu gën a mag ci Sénégal ñoo fi ne euh, ay professeur d' université jóge université bu Saint-Louis jóge faculté affaires islamiques jóge ci Daara Kokki ñoom ñëpp dañu fi nekk suba. lu mat 40 association aussi nañ danañ participer association bi ne dana yebal ñaari nit association bi ne yebal ñaari nit ñu nekk fii jóge ci 14 régions Sénégal yëpp ñu koy def loolu sax aussi bu ngeen gisee ñu koy def dañoo gis ni al fitnatu naa imatul la an la xam ne ay xasa fitna dafay nelaw yàlla rëbb na ko ko yee gisaat ni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 donte lu baax la ñuy def nag ndax addaalu àla xëy rek faayilihi soo defee lu baax ku la ci roy rek am nga yiw am na yiw kon ñoom ñu ngi leen félicité nag xam nga Abdoulaye Dia bi def Sénégal bi def concours bi chaque année moom euh, day jël xaalis bu bëri jox ma ne ma def ko ci concours bi forum bi bi dimbale loo ko fekk mais noonu la ci def donc loolu day wane ñun ñëpp ñoo bokk li ñuy liggéey mooy toolu lu sàmbi li ñuy suuxat Euh, diine lislaam la ñuy suuxat wane lislaam la ñuy suuxat wane lu baax la suuxat waaye président Macky dama koy sant ndax concours bi def naa ko ba mu am 20 ans def naa wala 22 ans benn état mosu dugal dërëm te Abdou Diouf jaar na fi Abdoulaye Wade jaar fi kenn ci ñoom ku ci mën a def ñaar dërëm amul moom bi mu toogee ba tey soo ko bindee dana la tontu bu bis ba jotee dina la yónnee lu takkoo takku def ko ci bi tey ji def na ko ci forum bi nu mu ko daan defee ci concours bi kon moom ñu ngi koy beral di sant di sant professeur yi fi teew yëpp su ma su ma su ma ci nuyoo suñu Abdoulaye Diagne mi nga xam ni moo ñu doon jàngal fii ci Cheikh daara Cheikh Mahamadou Moutala mi ne nuyu naa professeur yi fi teew yëpp naa sax ñu ngi ci yëngatu man ak euh, sëñ euh, Mansour Niass bu sëñ Mamoun Niass am na li jéego ñuy def euh, ak waa Dubai bu war nañ fee financer benn colloque bu mag boo international boo xam ne réew Afrique yëpp a ci teew jox nañ dossier bi son excellence président de la république muy xool ko daan moom bu validé rek incha allah ndaje moom dana am te lépp ndamu lislaam doon incha allahu taala